wax naa guddi wax naa bëccëg mu lànk rek ŋànk fi mu ŋànk ne dina ko maye te bu ko mayewul du am jàmm. ay dëkkandoo nañu mais lan moo tax ngeen bëgg a insister que ni li xew seen diggante ñun faw ngeen dugal ñu ci. li ma dal nii Cheikh Sarr wéli ma dëkk bi yëpp xale yi en yeeg fu ma romb ñu naan ma Paa Ngembo Galaas Paa Ngembo Galaas te loolu rafetu xamu leen fan laa toll ci moom moom man la am parce que bi mu nekkee xale ba xàmmee man rek la gis. day xamal nag mooy doomam bu ko neexee sax na ko may baabun waru may ko njugub man sama yoon niwu ci Cheikh Sarr man maa sippeeku ci moom ba set wecc xam merde Pape yow offensé nga ni ah. nga jël ci wax ji lépp boo ko defoon ci daara ji wàcce kaamilan ah. ku ne am nga sa cëggal guy man xam nga lu ma lay ñaan ngir yàlla ak war a suuli man koom fenal nañ ma ba ñëpp xam nañ ko su ma gënoon di ko tere su ma ñëwee ñi may arrangé dañ naan ma yow am nga loo wax Pape ñàkk nga fayda te xamuloo sa bopp fii maa ko moom bu ñëwaatoon ma dàq ko ca xaj mu taxaw fii ne daf may waar daf may indil ay leçon morale. yow est-ce que ça va. yow war naa laa yóbbu kër ñoom Siré ñuy waxaale mbëggeel jaayaguñ la nga ne yow yee yow yaay sàcc noonu pour ñu takkal la jabar yow. fecci sa kanam gi mu belli nga dund comme ñépp bul fàtte ni sama yaay lañ la tuddee. Siré bëggu la xam nga ni bëggu la laa la wax. ñuy wax ak moom pour le bëgg la yow ngay jàpp nga naan yow yaay ya dem ci baayam noonu wala bayam la ñuy muur musay sëy si bu dee baayam nga bëgg kay demal ñu may la bayam ku ñuy waye ya nag daa am nu mu war mel këram nga day belli reeyay jolli ay waay del def nii waay yaa booy yow it ah maa ñëw fi pour waxtaan ak yow nga teg ma ci axe parce que damaa dem ci kër ga ñu wax ak man paa bi wax ak man ma ni balaa def dara wala bala dara di xew ma dinaa ñëw ci yow wax ak yow parce que du ma def loo yëgul raison yooyu moo ma ñëw fi pour waxtaan ak yow lii moom du dara bokkul ci programme mariage bi dara dara du may gu du du du du dara dara. eric da nga ni man sa xarit si du dañ. yow nak je te déconseille ngay dem di tak ko xamni nobu la la gis nga sey dafa xat. gis nga wax duma ci teggi yota eric duma ak ak xaalisam bi labu bëgg nga delloo ko ko. Siré nag c'est ma meilleure amie man ak moom depuis xale du yow yaa koy yàq keroog ba ma lay jël di la yóbbu kër ñoom Siré damaa yaakaar ni yi may woon nit nga nit ñaay nga dara dalu la dof nga kay parce que dof weesuwul ñu dem ñu naan la Siré bëgg na la nga ni yee yaay yaay pour ñu may la ko dof weesuwul loolu.